moosa may gi xanaa gabon nga ko ngoore gile may key xanaa aras nga ko giire moosa may gi xanaa gabon nga ko ngoore gile may key xanaa aras nga ko giire ba nga tekkee sa ambi may gi fa njaareem la bawal jag ba dootu noori ka joori ba nga tekkee sa ambi may gi fa jurbel calamba xan ñalaabe ak ñu ba nga fenki ci réew mi góor ña nga seexal gétti nañ kaang ma jiitu woon ak foore tekki leen coor jox ko daal ko jiital fari jaali yëpp la ahmadu doore jekki leen samba yaane ngaana ngi awlaw am amulem kem fekki ba mbër ya di loore yow la yàlla yi demoo ca kaw ñi fi jaaroon jile wax nag malaaka yëpp ko séere ba nga salloo fi awnillahi ba dem ndar jalli gi jël si mi dal di libéré a dem del si gaañi mbakke ku dul yow sambari turam bu ñu réere rasuuli ku dul bu dajeeg noon ba woon gabon du fa fa góore jërëjëf xaadimu rasuuli ku dul yow bu dajeeg noon ba woon nga mu du fa góore jërëjëf xaadimu rasuuli ku dul yow bu dajeeg noon ba woon nga bang du fa góore Sénégal tuuti kon mu takku dogon yow ca dayay rey tubaab yi jàpp di doore baarakallaahu ñëpp suur nañu moo tax ma ne may gi xanaa nga bang nga ko baas ndën du rëy lu ñor li ñu am tey sunu waa ji xanaa nga bang nga ko sóore wal xiyaam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 day tuuru xol baa ngi jiim ci nim feese dell cofeel ak téyem mu jim jim téeg loola bam far ko të mu tuur ronga ñi way tefas ci texeem saam sang laay way di say xil xadim demam mooyoo way ju jooroo kërim saam sang laay way di sayxul xadiim de moom moo yeyoo way di jooroo kërim de moo jëf lu kenn mës la jëf wax yonen lu kenn mës la jëf sax di abdul xadiim demoo jëf lu kenn mas la jëf wax yonen lu kenn mas la wax sax di abdun xadim ci jaamoo ka bégloo yonen ci mbindam defar nit ba muy aw ngiram mustaqim te kan ñim defar ñëpp a mat ñëpp a jag ba yow koo ci gëstuy mbiram danga ko yéem dadaa yéen itam bam ne jarra xelam mu jàngal ko bam xam mu yor def ko kéem liggéeyal yonen ba waral ab tukkeem tafar jokkoo léppam ba cëg ak guddee ca loolee la sax moom di gont ak di xëy ba jot léppi ak ñibbiseem ba far boole gën ak raw ak man ku ne la yàlla yi dogal lar amul am pexeem ba far boole gën ak raw man ku ne la yàlla yi dogal lar amul am pexeem amul kenn amul kenn kaw ak suufayam ku wër ab kemam doo ko gis bul ko jiin amul kem amul kem kaw ak suufa yem ku wër ab kemam doo ko bul ko jiin da yàlla ko jiital ku nangoo ko bañ bañu jant teewul mu lay xëy di bëgg jàmm teraanga ki yiw nañuy bamba mooy tuy tereem salaat salaam nañ ko jagleel yonen wa aalin wa saabin këram na xadiim kaw umar la gee jangi kaay dëtam ku lëndëm jant baa ngi dikkal umar la gee jangi kaay lëndëm sonal jant baa ngi dikkal sëriñ bamba mooy géej bu dul jee du nax bari jën di mandal di booleeg setal te mooy jant njolloor bi ko xam su ne tëll weer far ko fal sëriñ sey bidiw yi te mooy jant bi sëriñ bamba moo gën ku dul kan yebal sëriñ seey bidiw yi te mooy jant bi sëriñ bamba moo gën ku kañ yebal te kookaay sangam bee di xayrul anim te sunnaam di toolam te moo kay bayal ci yitteeg ci pas-pas ci farloog ci ba yeesal ko jox ko yi ñu ñam tey dundal mbayinam rafet set bawul genn ñax ba yaaleel ñeleen seeni sas tey añal ba tax yàlla xëy ber ko jiital ko it te jébbal ko caabi ngëneelam añal ku sëñ Bamba seddul na ngay sooyi ëllëg ndemoo saytu saqi mayam jébbulul bu sëñ bamba seddul da ngay sooy ëllëg demoo saytu sappi mayam jébbulul ku kay tëkkalee ku sëriñ daa sëriñ bamba ndendam la dañ koo bindul julil nag ci yonneen moo ki ñeñam te salmal ci saabaam ya feeg muy jameel dikk nan tey gërëm di way ak sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaatu joo seyxi bamba jaara ma jaara jaara tullaahi mooy turam wa ñu jaamu yàlla liggéeye ko mooy soxna jaara soxna baalik maam bu sambaañu ne jaara am nga taw feeku gëm fabal tudde jaara turandoo jaara ajjanaay wàccuwaayam koo mën a doon santal ci mbaax jaara bu sa baalee manoon ci kër man ci jaamu fu mu jaar nit ñi yéemu soxna jaara gëm na yàlla yoneen ba xam sayxi bamba xam na boppam ba far mu doon soxna jaara daana jëf daana waar jigéen ña ca kër yëpp daana jàng ak liggéey ba doon soxna jaara xam-xamam wér na alquran xam na jaara lam ca daa bind cër la woon cay jaara am na sañ-sañ bu rëy ci buur bi di lum ko ñaan daal mu may ko ngir di jaara sayqi abdul ahad waxam jaaka yéeme nettalil ngir nu dolli waaru ci jaara nooni lislaam ba ñuy fexeel Seyxi Bamba def ko ci kamb ngir tuxal doomi jaara nooni lislaam ba ñuy fexeel Seyxi Bamba def ko ci kamb ngir tuxal doomi jaara malaayika teew na ngir dañoo sopp Bamba ne dañuy jiima dimbale doomi jaara maam bu safar fa teew ba génne fa xaadim naa ko sayqil xadim wéyal man la jaara maam bu safar fa teewu ba génne fa xaadim naa ko sayqil xadim wéyal man la jaara di am ndam lu rëy ba delsi ci réew mi dekkala ak sunna rey bidaa doomi jaara ku fi am sayxi bamba am soxna jaara wara sax jaara ma yow soxna jaara may ñu kattan ñu jox ko kay sayxi bamba may ñu wër sër ñu jox ko kay doomi jaara noo yalwaan noo ngi sàkkoo noo may nu daal man nga ko ndeyay soxna jaara fu fi waayi tollu neel amiin ngir mu baawaan ngir nu am ngir nu jëf basantu fi jaara jërëjëf rabbuna jaraw lak baali hakada cheikhina alqadim doomi jaara amina ya rabbi bi hurmatil jidaal wa hurmatil القرآن وكن الجدال آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرضي آمين يا مبدع يا معيد يا من به منه لو نعود أديب